dama gis configuration Kër Massar Nord gis ñi fi yëngatu yëpp comme leader ak ñi déclaré seen candidature boobu ba léegi LDR Yeesal waxu ñu armé de notre patience li nag rek pour que bis bi jot tey nag yaakaar nañ ne bis bi daa jot parce xool nañu ñi fi déclaré yëpp candidature ñu gis que ne su fekkee dañu war a tànn

le sens de la responsabilité devant l'arbitraire il n'acceptera pas Modiane devant l'arbitraire ko nangu je m'avais comme preuve Vous que si biir PDS ak président Ablaye situation Il troublante dafa jël responsabilité qui ne crée pas dem élection député am ci ñetti député kon du tay lay faral di yoxe yox wala di gannaaw par rapport à ces responsables locaux yi nga xam ne euh, population yi leur inspire leur confiance fu mu yaakaar ne moom mii war na fa sur la table pour ñu réhabiliter pour proposer suñu candidature am naa yaakaar que ne faral dina fëgg si table parce que du responsable du du du président bu irresponsable